politique la am na ay leader opposition yu fa nekk ku mel ne Mansour Faye dem nañ fi ñu bëgg a jaar fépp ñu jaar fa euh, te amuñu fa benn violence boo xam ne dégg nañ ñu ci ba ci Dakar gi Sacré-Cœur Mermoz jaar nañ fa jaar Médina jaar euh, ba benn tali euh, waagu ñaay yaraax fu ñu bëgg a dem rek ba ci pikin dem nañ foofu amul kenn ku ñu mës a dégg ci ay violence wala ay xeex wala xuloo ñu dañuy dem jàllale message wax suñ programme candidat euh, bëggal nit ñi soññu leen pour ñu génn wate ñu jëli seen carte d'identité daal di wàññeeku dem ñibbi parce que coalition bi ñu ko seq ñëpp ay kilifa lañ amul ci kenn koo xam ne dinga tooñ wala ngay dugg ci naka sudul noonu loolu laa bëggoon nit ñi xam ko kon bu ñu demee tey ba àgg Daaru moxti coow am fa ah kon dañuy jàpp ne ñun de loolu taxuñu woon jóg li ñu taxoon a jóg dafa bokkoon ci ñu def li ñuy def ba mu yegg am ci ndam tam ànd ak jàmm waaye li am démb Daaru Muxti du jàmm parce que lan moo am Daaru moxti mooy démb dañoo jóge Louga dem daaree kokki dem jëllërlu si la jóge fa dem caameen parce que démb dañ ne woon dañuy def ci dëkk dëkkaan yépp jóge fa ñëw ngumba ngeewul fa la ñu ndogoo ci man soo Ndiaye jóge ngumba ñëw Kébémer xam naa nag Kébémer foofu la coow li tàmbalee donte foofu amul coow parce que Kébémer dafa nekk dëkk boo xam ne euh, dafa nekk ci département bu euh, Daaru Muxti ci même département bi la te jaañ Fada dafa engagé wu ci kanamu Amadou Ba ne dina ko gañeel département bi bi mu ko koy wax nag daf ci yaakaaroon sagata ak ku fe ne ay saam yabal ak sa ak ak ak euh, ak Kébémer Daaru Muxti moom xam na ne dafa am dara parce que élection yi jàll yépp dañ ko ca dañ dañ ko fay gañe dañ koo dumóoyu jaar gi ma jaar nag ak coalition bi Daarul moxti mu xumb lool ñu dalal ñu euh, te taggal ñu ñu def lépp mu koy gis ci live yi xam naa ne gis na ah ñi kat fi ñu jëm bu yeggee du baax ñu jóge Daaru moxti ñëw sagata sagata dëkk la boo xam ne du dëkk bu mag lool waaye la fa nekkoon ci am mbooloo dangay wax ne sax ñii dëkkuñ ci biir dëkk bi parce que dëkki àll yi sax lañu takk seeni sareet xaarañu ci digg dëkk bi biñ ñëwee ñu ànd ak ñun ñu fekk fa coordonnateur u ñu def nañ defoon mu gis na fii kat mokk na rumbux xam naa ci leen ne sëñ baaram mii ak kowalison bi mu àndal su ma leen bàyyee fiñ ma jëmee baaxul bi ñuy ñëw daaru moxti ñun xamuñu dara ci lu xew parce que dañoo jël si ci buntu dëkk bi ak coordonnateur ba ak euh, ña fa nekk ñoom daa am ñu daaru ak euh, waa kër Ousmane Sonko ya fa nekk yépp ñu ànd ak ñoom di way di karawaan ba yegg si ci rond bi ñuy wax panneau bi ñu taxaw parce que booba daanaka deux heures du matin jëm trois heures du matin jot na parce que daaru rek bi ñu fay dugg minuit jot na ñu ne fii la ñuy taxaw pour jël kàddu yi bi ñu taxawee pour jël kàddu yi ah ñuy wax ba mu yàgg ci lañ njëkk a ñëw garde corps yi ñëw ne ma ah am na benn xale bu jigéen boo xam ne ci suñu ndaje mi la bokk ñoo ànd ak moom mi ngi nii toog dend ak man waa kër jaañ fada yi dañ ko nappe ma ne kidnappé ñu ne waaw fekk booba sax maa ngi def discours ma ne ko wax ko ndànk parce que loolu bu ko mbooloo mi déggee dañuy dem attaqué ji ñëpp na dañ koy nangu di te loolu day indi fitna bàyyi bu ma paree discours dinaa la wax nu ñuy def bi ma noppee discours ma laajtewaat ko ñu ne ma ñu ngi ko téye foofu ba léegi ma ne bu kenn dem duñ ko rey duñ ko def dara nañ ko bàyyeek ñoom dinañ ko bàyyi nestut ñoom ñu ñëw ne ma léegi bàyyi nañ xale bu jigéen bi mu ngi nii toog ci man sama wet nii bàyyi nañ ko kon mi ngi nii ñëw na ma jëlaat micro bi ku seetaan live bi rek di ko gis ma jëlaat micro bi ne leen dama leen di ñaan waa Daaru Moxti ni ma gisee département bii euh, dinañ ko gañe quatre-vingts pour cent te loolu du neex ñi nga xam ne ah ñoom lañ ko seqal mais nit boo amee sa ndam bul nangu kenn provoqué la ba ngay joteeg moom ma wax leen loolu ñëpp tàccu ñu daal di jëm tuubaa parce que kat pare woon nañ Daaru Moxti ba war a dugg nag tuubaa parce que dañuy continuer woon suñ karawaan bu dul woon ak xew-xew bi am tey ji Mbàkke lañ waroon a yendu ji euh, parce que dañ ku ne xam na ne président Ousmane Sonko dafay ñëw suba ñu bëggoon a dem karawaan yëgal ko nit ñi ba noppi jënd ay nag ak togg fa ay xéewal pour suba bu président Ousmane Sonko ñëwee ñu mën a def teraanga parce que ñun loolu lañ bëggoon a participer ci xew mi suba waaye loolu mujjul am parce que attaque bi dafa mujj jural ñu ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne dinañ ci ñëw parce que ñi toog ñëpp dinañ ci indi ay leeral jafe-jafe yooyu nag moo tax ñu dëpp ñëw dakaar moo tax ñu wax ñi ne dañuy wax ak askan wi bañ xam euh, kooku di Modou Diagne Fada li mu def parce que bi ñu jëmee Touba toll ak mbeddum këram moom nag dëkkul ci kaw tali bi da ngay jaar ci benn koñ dox lu xaw a romb ay kër foofu la dëkk moom dëkkul ci kaw tali mais mbedd mi këram nekk dafa gaare ñetti oto ànd ak ay nerwi ak ay fetal fetal bal rayal dinañ ci ñëw parce que moom dafa juum ci ni mu doon defee coup bi parce que ñun mënuñoo dëkk daaru moxti di ay doomi daaru mu bëgg ñoo faagaagal safoor bi dawal dëkk daaru ñu dëkk daaru xam nañ gone yi ñaar ñetti oto yëpp safoor ya ca nekkoon xam nañ leen bu baax nii ñu xamantee parce que ñun ñoo bokk dëkk Touba ak Daaru benn la ña nga xam ne itam taxawoon nañ fay nekki nér wi am na ci ñum jëlee Dakar fexe nañ ba xam nañ tudd ñoom waaye am na ci ñoo xam ne Daaru la leen jële ñoom it xam nañ leen ba xamante nañ ca dëkk ba kon loolu dafay yomba lijjanti bi ci des mooy ñun karawaan lañ yoroon li doon def live boo boolee seen YouTube yi ak tiktokeur yi ëpp na fukki seen kon donc foofu amul lenn lu mën a romb fetal yiñ yoroon ak jaasi yeeg oto bi ni mu ci kaw mbooloo meeg lépp mi ngi ak ñun ay preuve yu leer naññ nekkul lu ñuy fen sos nekkul lu ñuy wax léegi bi nga xamee ne nit ñaa ngi romb man sama oto laa jàpp ne man la doon bëgg a rey parce que bi oto journaliste yi romb na oto bi def sono bi romb yeneen oto yu ndaw yu romb bi samay oto yu tolloog mbedd mi la benn oto daw cent à ñëw taxaw ci digg tali bi ba nga xam ne man amatuma fu ma jaar fi may freiné oto bi man dawaluma sama safoor fi muy laale oto bi rek beneen oto bi foncé rek bëgg a yéeg ci sama bëgg a mbëkk sama oto sama safoor gis ko gaaw mbas yokk vitesse am génn bi ñu xamee ne rëcc naa leen ci lañ soqi ay bali fetal may dégg ñëpp a koy dégg ñit ñaa ngi nii danañ ko wax ndax ña yoroon fetal gi sax ñun xam nañ leen ñu soqi ay bali jël ay xeer di sànni ba toj sama vitre oto euh, coordonnateuru Pastef Daaru Muxti muy euh, nan Mbaye sax naa Bey ak Thierno euh, Mbaye professeur Thierno Mbaye dañu fekk otoom dañ ko dàq ba jàpp ko moom itam toj otoom ba mokk rumbux toj vitres yi def ko lu nekk gaañ ko dina ñëw ci blessé yi ñu am ak yooyu yëpp mi dama leen di wax rek ni mu demee bi loolu amee ku ne xam na ne ñun pick-up lañ yoroon xale yu jigéen yi ñu ci bari ci pick bi lañ yéegoon ak xale yu góor ñu nekkoon ci pick bi dañ leen a dàq ji mbooloo mi dafa bari oto bi du mën a daw ñi dàq leen daanaka xaw leen a jot di dóori xeer ci kaw ñi nekkoon ci kaw pick bi ba li ci toj ay bopp ñenn ñi dañoo tiit ca damm am nañ ñu ci am ay damm-damm yu bari ñenn ñi dañoo daanu ca péelu mais dañoo daanu biñ daanoo am na ci ko am jafe-jafe yu ndigg ba ma nga ca hôpital ba ñu bàyyi ñi am damm-damm yi seeni rajo mi ngi nii loolu lépp dinañ ci ñëw pour wax leen rek jëf ji ni mu toll bi nga xamee ne am nañ ñu cëppeelu ba fii may wax ak yow nii am na ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ci karawaan bi lañ bokkoon gisatuñ leen te am mënatuñ leen a woo ba jot leen taxaw nañ daaru muxti entre quatre heures du matin ba sept heures huit heures lañ gën daaru parce que dañ doon bañ blessé yi tamit di am jafe-jafe ci lañ mujj ne nañ obligé ñëw suñu noppee ñoom làmmiñu daaru ak ak ñeneen ñi ci des ñoom lamin ñoom lamin lamin defe naa ak euh, njaay Touba ñi ngi foofu ñoom pour rechercher ba xam lan lañuy am ci ci ci ci ci ci ci seen information ñoom léegi lii lépp nag bu amee te nekk ay doomu tooñu ñu kenn doon def suñu warugar muy campagne électorale jot ñu sol suñu dàll jël suñuy moyen bàyyi suñuy yitte di liggéeyal Sénégal di dem ci ay dëkk yu wuute saagawuñ kenn dóoruñu kenn xeexuñu kenn parce que dem nañ ci lu ëpp ay ay gox yu wuute fréquenté nañ ay daje nañoo ay politiciens yu dul jeex parce que Thierno Alassane Sall rek mën naa wax démb ñoo yendoonoo Louga bi ñuy génn ngumba ñu ngi daje coalition Anta Babacar Ngom amuñoo kenn problème kenn suñ demee ba Daaru Muxti nag Diagne Fada gis ne moom dafa am jafe-jafe ci élection yii mooy ñaari jafe-jafe mooy dina perte élection yi benn deuxièmement jël na alalu Benno Bokk Yaakaar nax ko amado Ba jël xaalisam ba noppi mënta campagne parce que fu mu génn ñu yuuxoo ko mu ne na wut euh, beneen façon muy jaar ci violence loolu nag dinañ ko ko may duñ ko ko may su ma waxee duñ ko ko may nag mooy ñun duñ xeex di def suñuy propagande ak suñuy liggéey ba am suñu ndam téyeeku nii ci suñu loxo 2024 bii la 24 mars région de Kébémer dema département Kébémer di ngeen fa dégg résultat yoo xam ne yéen ñëpp ay tëj seen nopp parce que dañ koo liggéey ba mokk rumbux kon duma yi nga xam ne moom lañ war a duma Diagne Fada moom lañ ko war a duma dañ koy xaar ci biro de vote bi mais dafa am leneen loo xam ne duñ ko nangu mooy buñ bu ma nee dinañ ko nangu mooy dinañ ko ko muñal ba de ba 24 mars bi dimanche soreetul dinañ ko wan ne ko daaru muxti moom moomu ko ñafa nekk tamit duñ ay jaamam jëndu leen am nañ droit choisir ku leen neex te ñooy wateel Ousmane Sonko tànn bulletin Bassirou Diomaye Faye te ñoo tey noonu lañ koy defee mais li ma ne wax ne duñu ko nangu mooy histoire retiendra Modou jaañ Fada dafa góorewul du nit ku gore parce que moom dafa nekk xale bu ndaw nekk UJTL PDS di liggéey daaru muxti di ko sagoo fu mu leen woo ñu wuyu ko bi muy ànd ak Ablaye wàdd ba ni Ablaye wàdd daanoo amul benn élection bu am te Ablaye Wade gañewul daaru moxti te Modou Diagne Fada yi tax mu gañe ko 2007 bi ko Ablaye wàdd investir da neexu ko dafa gedd Ablaye Wade def coalition waar wi ñëpp topp ko entre Daaru moxti ak Touba ba mu am defe woon naa ne 4 député xaw ma 3 amoon ci satisfaction bu mag bi mu noppee na day àndaat ak Ablaye Wade ma mu geddoon waa Daaru Muxti toppaat ko bu àndaat ak Ablaye Wade Diagne Fada dégg na maire jaañ Fada dégg na député ay yoon dégg ministre bu ne dégg DG te loolu lépp dégg ko ci gratuite grâce à votu waa Daaru Muxti kon su demee ba waa Daaru Muxti taxaw jublootuñu ko defe naa ne amoon na beneen façon bu mu mën a jaar bu bokk ak di wut ay fetal di leen fetal wala muy wut ay jaasi di ko caw seeni doom parce que man maa wax samay blessé mais hôpitalu Daaru Muxti tey ku mu demoon ma nga fees dell parce que la nekk ci ay blessé yu ñu cor jaas yi ñii daanu ci tali bi ñii seeni ba kanam toj ñii ay xeer dal leen kenn mënu ko wàññi te lépp ay jëf la yoo xam ne moo ko jëf te moom bakkan la doon wut parce que mbooloo mu tol noonu dama leen seetaan vidéo mi ngi sama page Facebook mbooloo mu tol noonu ku mën a jël ñetti oto foncé ko ci seen kaw ci ay xale ki jigéen kooku da bëggoon a rey yàllaa ko dimbali rek yàllaa ñu dimbali loolu amul te nag 2007 bi mu nee dafa am ak problème Ablaye Wade dem samp waar wi Ablaye Wade jël ku ñuy wax ceer na lool teg ko fa mu wutu ko Daaru Muxti jaañ Fada xawoon na tiit ne nit ñi duñ bàyyi Ablaye Wade di ko topp coow lu mel nii la indi woon Daaru Muxti xeex guddi xeex bëccëg ba ku ñuy wax euh, Moodu Diop frère la ci lam moom Mandumbe Diop mi ñuy wax ñu Daaru frère am ci loxol Moodu Diagne Fada la des ci xeexi politique yooyu ci la ko muudu Diagne Fada rey ci anam gu mel nii 2007 ñu bàyyi ko mu jàll parce que dañ ne woon ci biiru mbokk la su demaatee ba tey mu demaat ba tey mu gis defetam continué waat di recruter ay nervi wut ay fetalam fas yéenee jëlati bakkanu doom doomi waa daaru muxti yi ñun dañ naan ko arrêté Diagne Fada dootu fetal kenn daaru moxti te dootu fa foncé ci kaw nit te dootu fa politique ba fay fol ba fay tas ab ful parce que ñaari ñaari gàcca dinañ ko ñaari yoon dañ ko xeex ak moom mooy élection yi dinañ ko ko gañe te ñun ñii toog ak victime ya nekk Daaru Muxti kenn ku ci nekk dinañ defar plainte collectif avant ñuy def conférence de presse bi dem nañ ci suñu avocat maître Abdourahmane Diallo wax nañu yoon wi ñuy jaar dinañ defar plainte boo xam ne Cheikh Tidiane Ndour procureur Louga la ñuy dem jébbal ko ko ñaari plainte lay nekk parce que dafa def enlèvement suñu mbokk mii daf ko enlevé jël na oram dóor nañ ko nangu ay weeram gaañ ko depuis trois heures du ba léegi kii mënul mënul mënul nekk nit parce que dañ ko xoxotal teg ko ay fetal te nag nekkul lu ñuy làmbatu Modou Diagne Fada ci boppam moo ñëw taxaw di wax ak kii kii ne ko xam naa la yow mu ne ko léegi looy wut sama koñ ak nangam nangam te beneen preuve bi am mooy bi coow li amee mu dégg fetal yi tàkk moom tiit na tiit na mu téléphoné sëñ Abdou Mbacke mu bàyyi Cheikh Khady men téléphoné ko ne ko ñoom dañoo ñëw sama kër di ma provoqué te waxul dëgg ñun mënuñoo yor ay live di ñu laayfal ñu mën a wax loo xam ne nit ñi gisuñu ko dem leen ci live bii gi rek ngeen seetaan ko fi mu jeexe ñëpp danañ gis ni mu demee ñoo ñu fekk ci kaw tali bi. ñuy dem jotewuñu moom dara mu songuñu mu téléphoné Cheikh Abdou ne ko léegi ñoom ñoo ma song moo tax booy yi tiire fetal kon donc def na aveu deuxième aveu bi ci des mooy bi mu demee ba xamul accident bi nu mu demee est-ce que am nañu dee est-ce que amul ñu dee mënul nelaw mën naa wax ne 4 heures du matin ba 5 di ma matin ba 6 bi ñuy génn daaru mi ngi topp coordonnateur daaru Pastef daaru Muxti di ko téléphoné di expliquer li mu bëgg mën xam naa ko. waaye duma ko ko may mooy affaire sëñ Touba def lu la neex pare naan noo ñoo bokk sëñ beeg nañ ko waxtaan ak duma waxtaan déw ma ci sëñ Muntaxa parce que xam naa ci loolu la jëm déw ma ci sëñ Bas Anta Ñang déw ma ci benn kilifa diine dégg nga liñ bëgg mooy dem ci yoon au niveau de procureur déposer suñu plainte toppante ko ak moom parce que moom da dul nit rek bu fekkee doolee Amadou Ba wala doolee Macky Sall la yaakaar jeex na parce que man ak ñiima ma àndaloon ak yéen sénégalais yii di seetaan xam ngeen ne élection yii di ñëw premier tour lay am man maa leen ko wax lu leer laa leen wax amul werante sénégalais yi ci seen bopp dañoo jël décision saasa seenum réew jaañ faada xam na ko waaye day dof doflu su fekkente ne nag doole yi dooley Modou doole yi Amadou Ba wala dooley Macky sàll moo tax mu jàpp ne la woon 2007 mooy rey nit dara fekku la ci moo fi nekk ba tey xamut li xew d'ici semaine prochaine dinañ ko déposer plainte te li ciy neex d'ici semaine prochaine moom dootu nekk dara ci Sénégal dina yomba lijjanti lool yomba jàpp lool te dinañ ko def ci kaaf gi li ma ko mën a baaxee nag mooy buñ ko jàppee moom man mën naa koo may añ ndax sama mbokk la danaa wax madame mu koy cibbal bool waaye Diagne Fada moom dana dem prison moom parce que ay nit ku foncé ci seen kaw tiire leen ay bali fetal toj seeni oto saccagé ko ñëpp xëy dem hôpital nga nekk ci dëkk bi di dox loolu ku ko def ñun buñ la bàyyee ñun ay criminel lañ parce que bu subaa beneen politicien dina mer def ko loolu moom il faut mu leer mu di Diagne Fada dinañ ko topp ci yoon lu ñu yoon may dinañ ko jël amul bàyyi amul arrière jërul nag ngay dem ci benn sëriñ di ma kalaame yaa ngi woote pour ñu négocier ko négocier wuñ xamadi ak yaradiku gi nga nekkee ci dëkk bi danañ ko lijjanti parce que politique affaire gentleman la du affaire bon xol du affaire naan say vayen rek ñëw di fontoo nit ñi dégg nga su fekkente ne da ngay politique ngay gañe muy neex soo demee ba perte da ngay nangu ne perte nga yow ak Amadou Randal Ba dara du ngeen ko am ci élection yi man maa la ko wax waaw waaw amadu Randal Ba ak ak Modou Diagne Fada Modou Diagne bu fekkente ne dafa jàpp ne daaru muxti bàyyee a ko sanc wala moom moo jur ña fa nekk ay jabaram lañ wala ay jëkk mooy suñ bàyyi nañu ko wax bu fekkee ñun waa daaru amuñu droit ñun xool politiciens yi ne kii moo ñu neex moom lañuy àndal suñ ko defee jaañ fada dañuy duma ñun ba ñu wateel ko su fekkee loolu la moom man xamatuma ci dara te moom loolu la ñu jàppee parce que nag jaañ fada problème bi mu am daf ko xamul moom dafa séq ak mbir mi ay gor te xamu daaru muxti ay goro fa dëkk mu am mooy daaru muxti ba mu ba mu daan ànd ak Ablaye Wade as ngone su tuuti la woon ñeent fukki atam matut woon ñi di ko dimbali di ko jàppale politicien bu ne nuyu nañu faale wuñu mu dem ba mu yàgg mu dëkk ci randal xaalisu réew mi te loolu dinaa ci ñëw beneen yoon parce que Sonacos gii moo gen mam fa wuutoo seen tojaange yi fa def yépp dinaa ko génne dinaa ko wax te jaañ faada loo yaakaar ne xewuma ko xam naa ko sa néeg sa ruqub néeg sa ron lal sax la nga fay denc bu ma ko bëggee xam danaa ko xam gis nga randal ak tappale ak càcc gu metti gi nga nekk sonaakos dinaa ko génne bëccëgu ndara kam yow ak gain sax laay boole parce que du ma yem ci yow jëkkër yi Ndeye Sali Diop yoon jooju la fa njëkkoon a nekk nga jiitu ko fa yéen ñaar ñépp a yem ay tappalekat ngeen sàcc rek ngeen nekk Sonacos guddeeg bëccëg di tappale xaalisu nit ñi la ngeen fay jël bu ngeen ko fa bàyyi woon Sonacos réglé woon na bu yàgg mais bu demee ba Sonacos gerteeg daaw nga ko fay fekkaat xam nga ne liggéeyoo tappale ngay def loo am nag loo sàcc di ko jëndee kër fii xam nga luy sa problème ak waa daaru yow yaa ngi dëkk cité kër góor gi man ñëw naa fa ñëwati fa fekk seetuma la woon nag sa frère laay set waaye jaañ fada maa ngi leen di wax yéen waa daaru moxti kenn nit ku dëkk daaru ku ne mas na maa dem kër jaañ fada fii ci ndakaaru amut bu ñëwee ndakaaru dëkkatu su demee ba élection jot pour moom waa daaru ay xar lañ yoo xam ne su ko neexee daal toog ba mu neex ko mu for xaalisam ñëw jënd maire yeeg paay après ñu wateel ko mu jëlaat otoom ñëw bañ na ko ba élection yii mu commencé daaru di naqari ci moom sax léegi tuxu na këram nga vidd la bërki démb la la la jaañ fa da ñëw daaru moxti bërki démb te xeexal ko fa andi bi mu ñëwee tàmbalee karawaan booy yi ne ko du ci dal maire bu mu jox 5000 ñu ne ko jëlal bu bu ñun kenn duñu jënd mu xam ne lii mënta sotti léegi reyante la bëgg a def reyante boobu nag man maa la wax dinañ ko saafara ñun doomi Daaru Muxti yi parce que pelente bi collectif la te nag bu dee justiciable nga maanaam dangaa nekk koo xam ne yow yoon mënu laa topp Ablaye Wade ak Macky Sall de mënal nañ la loolu waaye seen nguur jeex na seen nguur daanu na te nguur gii di fi ñëw xàmmeewul ay tappalekat dinañ la plainte te basiiru Diomaye fay mooy nekk sa président du ma faral de waaye du la faral yow du ci aar kenn nañu bàyyee ak yoon li ñu yoon may ñu jël ko loolu moom na la leer nañ di la waxaat encore une fois waatal naa la ko ci téere ci suba dama fekk ma xaw a tàng waaye man duma wat ci sëñ tubaa ay caaxaan billaahi wa rabbul kaabati lii ma wax nii la demee jaañ faada daf ñu attaqué fetal ñu toj oto yi lépp kenn mënu ko fabriqué mi ngi nii ay vidéo la àndal est-ce que nag ñun dinañ bàyyi benn nit politicien boo xam ne dafa jàpp ne moom politique victoire daal la ci war a am ba yëkkani lamb ji nag muy daan mënoo tax jaañ fada da gañewaat dara Kébémer fuuti na dégg nga léegi nag doomi Kébémer doomi doomi doomi kii seen bopp yi dafa tijjeeku li xew làmmiñu daaru yéen ñëpp Cheikh Omar Bamba Diop yéen a ñëpp ngañ jàpp Pape Mamadou Seck tëj ko ñaari at giñ ko jàpp lu ëpp ñaar fukki doom doomi daaru muxti def ci kaso bi di foyee nit ñi ba mu neex leen ngeen naan ay amnistie tappale bëgg fee xëy demaat ci maire yeeg paa yi ñu ñàkk jom nekkuñu daaru ba leen wateel diggante Diagne Fada ak daaru muxti jeex na dig ta Diagne Fada daaru muxtee ko bàyyi ci politique politicien la boo xam ne yambar la wooyee daaru muxti ma ne la jànq bi yow jànq sax moo la tane parce que jànq ji sax souvent ñu takk suuf jënd ko lippaleef di lippaleefu ah yooyu duma ko wax sax li muy guux ak yooyu yooyu ngay bàyyi te nekk góor tuuti te nekk gor soo àndee nguur bu daanoo nga xam ne dafa daanu nga opposé wu dégg nga waaye yow sa àdduna yépp nongu nongi nag ma koy daaneele mooy déclaré nga ma guerre nag waaw man mii nga fekk ma toog nga fetal ma toj sama oto mi ngi nii te jëndaloo ma ko yaaw ko toj gaañ samay gone damm ci ay nit li ma doon def muy karawaan bii ma doon def mu neex ñépp tey jii bi ngi nii ñi ngi ñi toog fii di wax te tam heure bi waroon nañoo fekk ci liggéey bi lii nga ma def nag maa ngi lay défier baye loo xam ci saa saahir ak baatin nga def ko parce que man danaa xeex ak yow te man yomb maa xeexal te maa ngi lay waatal ci alxuraanul karim senegal dinañu àtte ñépp daaru muxtee ngi fi tuubaa ngi fi nawle yaa ngi fi ndax ñoo bokk lépp xam naa la xam nga ma nawle yaa ngi fi wallahi laasim li nga def nii di ko tuub ba cëgu ndara kàmm lenn nag mën nañ mooy nga génn nga wax ne yow ab reykatu nit nga da nga ñoo bëggoon a rey da ngaa màndi woon xaw ma lu la dal après ñu doog a xool lu ñuy def su dul loolu nag ba boo nga defar say bagage ta xam ne kaso nga jëm waaw léegi nag damay jox ndaw sii li may wax lépp nag dama ko doon wax parce que daf ñu tooñ dama koy wax ba mu leer nañ ndax xam naa ko ku ñeme yàlla la ku ñeme fabriqué la ku lu mën a sos la xam naa dans trente minutes nga seen ko muy xonqali tuñ di yuut di wax lu dul dëkk waaye li ñuy wax lépp photo vidéo film ak kayitu daktoor mi ngi nii tege ndaw sii toog mi ngi nii dinañ leen ko jox moom ci boppam lañ nappe laata xeex bi di am moom dafa am pelente boppam parce que dañ ko kidnappé woon enlèvement nag xam nañ lan la ci yoon wax léegi nañ leen bàyyee ndaw si moom dana leen expliquer nan la scène bi demee bismillah non mën ngaa jël bi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim man démb ba nekkee ci caravane bi boobu ak léegi ñun ñoo ne nekk ci caravane bi c'est bon c'est ni ma ko waxee boobu ak léegi ñun ak ñoo ànd nekk ci liggéey bi. du campagne nekk ci caravane bi di dem di topp suñ caravane fu ñu dem macha allah fu dem macha allah ñëpp génn dóor yee metti nag da ngeen may comprendre fi ne bu may wax sama wet yëpp ay metti waaw noonu la demee daal bi ñu demee ñu nekk suñ liggéey nekk suñu yoon caravane di caravane ba ñëw ak si dëkk bi nu mu tudd Darou Moussi bi ñu ñëwee Darou Moussi man ci laa dégganteeg sama yaay dafa am xaritam mi yor amee tan la ñu koy woowee soxna Sall waaw sama yaay ne ma comme yéen a ngi foofu bu ngeen ko ñu ngi nii daaru agsi na la dëkk ñu ne ma koñu pharmacie bi ma ñëwee ba ci koñu pharmacie bi ma laajte ay xale yu góor laa fekk ñu taxaw ma ne leen xam ngeen ku ñuy wax tan soxna Sall ñu ne ma waa kër gee man dama doon deux mètres rek jékki-jékki benn xale bu góor ñëw rek dóoree ma ginnaaw keneen ñëw xëcc sama braada yi ma takkoon ñuy jàpp ma di ma dóor mbooloo mu bari ñëw mbooloo mu takku ñu jàpp ma kii di dóor fii kii di dóor fii ci noonu moom jaañ fara ci la ñëw ànd ak ay gaatu ko bi mu ñëwee daal di ma laaj na ma yow soxna si xam nga li nga def dëli la ah, yor sa écharpe dugg ci koñ bi te xanaa xamoo ni fii sama secteur la man ko kon loolu yëpp am na ci man sama tànta laay seet mu ma kuy sa tànta ma ne ko soxna soxna Sall mu ne ma soxna Sall ma ne ko waaw mu ne xam nga bu ma la bàyyee kuy dina la rey ma ko waaw parce que commencé nañ ma dóor te man xaw ma lu xew noonu mu wane ginnaaw xale yi tourné waat ñëw di ma dóor bi may dóor muy wane ginnaaw man ko yow jaañ fara xam naa la bu baax